yéen nekk leen ay nit est-ce que mara bi joxe na tur dafa am benn mara bu génne dafa am benn nit ku siiw Sénégal ku dem ba ci moom avant may ñëw ci mara bi sax xaaral ma ñaanal prioritaire bi ba pare Aliou Cissé ñu ngi lay ñaanal yàlla fëgg sa bopp le plus vite yàlla na yàlla delloo la ci sa sago le plus vite possible yow ak ñi nga séqal kuréel gi yàlla may la jàmm kàttanal la yéen bi woyof ci sa kaw pression mondiale bi la wax ji bari na doomu aadama attanul yenn yi mais ñu ngi lay ñaanal yéen bi woyof ci sa kaw Seydina Aliou yal la yàlla defal jàmm fa nga daan jaar ak sénégalais yi nga jaar fa ak ñoom encore yaakaar nañu la de delsi le plus vite possible ci kàttanu sunu borom na médecin yi jóg ñaankat yi jóg ñu ñaanal la nga delsi waat ci ñun retrouver waat équipe bi ñëw yoraal leen ci condition yi gën ñu ngi la koy ñaanal jëmm ja di Sadio Mané duñ ko fàtte benn yoon ñu ngi koy ñaanal yàlla fëggaat boppam gaaw mu dellu si waat ci zëm incha allah ak képp ku mu bokkal kuréel gi euh, sëriñ bi génn ne leen euh, dafa am ku dem ci moom euh, li may laajte man yéen nekk leen ay nit est-ce que